association bi ñu ngi ko sos en février 2019 février 2019 lañ ko sos mais na dafa nekkoon suñu mbébét bu yàgg ay année depuis 2009 ba léegi ba suñu borom dafa dogal nag si 2019 bi en mois de février ñu taxawal ko waa bi biñ koy taxawal suñu borom daf ci def taw féex ndax ñun suñu borom dafa dogal ñu dëkk ci gox boo xam ne muy Colobane barabu liggéeyu kaay la ba pare ñi fi nekk tamit nekk ay nit yu jàmbaar yu bëgg liggéey euh, jigéen ñoo xam ne ñu gëm seen bopp moo tax kon biñ koy soos ñoom dañoo ñëw jàppale ñu si amuñu ci benn jafe-jafe sant yàlla rek wax dëgg yàlla ndax suñu première réunion moom ku fi teewoon di nga xam ne lii ndekete jigéen ñi bëgg nañ développement. activité activités yi ñu def nag bëri na ndax en dehors des activités comme boutique communautaire bi nga xam ne moom depuis février dina ba léegi arrêté wu jënd jaay bi dañuy xool li nga xam ne moom la ñuy soxla. au quotidien comme ni ko fi sama naataango yu waxee sànq li ñuy soxla si kër boutique communautaire bi pour ñu muy générer ay bénéfices nga xam ne day delluwaat si ñun. dañuy def tamit euh, comme suñ secrétaire général ni mu ko waxee léegi dañuy def entre aide cotisation cinq 500 francs chaque membre nga xam ne ku ci feebar feebar boo xam ne jéggi na jaaxal nañu.

Euh, ñuy góor góor lu boobu ba léegi nag bàyyiwuñ waaye daal ni mu war a doxee daal des na lu bëri. waaw euh, li tax ni mu war a doxee doxewu ko parce que développement féminin comme que euh, comme que état ONG yi moom lañ préconiser ndax dafa nekk loo xam ne ku ci investir day am résultat yu mag mais ñoom seen bopp tamit nañu xam ne association yi regroupé wu nañ waaye ndimbali ni mu war a ñëwee ñëweewu ko ndimbali dafa war a wàcc ci terrain bi ba jigéen ñi ji ci seen bopp. ndax di daje di liggéey ku ci nekk am nga sa activité boo xam ne sa activité bopp la nga bàyyi ko di daje pour développement kon dañu ci war a jàppale daal pour mu jëm. ñun loolu dañu teel a am kii bi parce que ñun bi ñu taxawalee rek si lañ def démarche ñun bi ñu taxawalee février 2019 juin jot nañ suñu récépissé ba bi ma koy jëli sax sous préfecture. xam naa monsieur Sow je euh, Sow je je le salue de passage mu ngi sous préfet mu ngi sous préfecture moom sax mën na ma seede bi ma demee def na ma yéen de bii ngeen am am na fi ñoo xam ne seen këyit am na fi des années ñun këyit moom yàlla def na ne dañ koo gëm te suñu lépp jaana si yoon macha allah depuis na ba léegi suñu état financier ak suñuy bilan des activités ak tamit ji même ñi nga xam ne sax def nañ fi formation wala ñu participer ci atelier ak ñi fi mës dimbale yëpp mi ngi ci suñuy papier ñu garder depuis 2019 ku fi ñëw dinañ la génneel suñu même facture sax grossiste bi ñuy jëndee 2019 ba les factures yëpp ñu ngi ko garder. kon ñu ñun suñu récépissé mën naa wax ni am nañ lu jafe teel nañ ko jot li ci des kay xanaa mooy euh, ndimbal li moo yegg seegul euh, ndimbal li nag am na lu yegg si sax mais des na ndax man ci bi laa nekk wax dëgg yàlla ñoom it ñu ngi ciy jàpp. ndax monsieur le maire wax dëgg yàlla ku ko xam-xam ne euh, social daf koy def euh, je salue aussi monsieur Wane de passage moo yor bureau social ak éducation ci maire bi ndax fii am na ci ñoo xam ne jëlal nañ leen fi ay lettre de garantie prise en charge hôpital bëri na suñu membre ñu ngi ko jëlal bëri na ñoo xam ne tamit euh, seen doom yi may nañ leen bourse d'études ñu def formation mais nag dafa des xam nga mairie dafa nekk loo xam ne dafa am fu domaine de compétence am yem kon état si boppam moom ñoom ñoo war a gestu jigéen ñi ñëw jàppale ñu nga xam ne ndimbal loolu dina gën a am doole. waa am na bëri na fi autorité ndax euh, bi ñu ko taxawalee bees dem nañ ci ay autorité yoo xam ne wax dëgg yàlla jàppale ñu ku mel ni Thierno Ndiaye bi nga xam ne nekk na Colobane sama naataango wax na ko léegi bi ñuy def suñu journée lancement bi ñëwoon na indi ndimbalam. Mame Fall tamit ñëw na mais Mame Fall tamit maa ngi koy lancé appel parce que moom moo représenté fii APR ci commune bi. te jigéen la suñu nawle jigéen la wax dëgg yàlla dama koy saluer de passage ndax man mii sama sama sama waay la waaye tase nañ ki démb Grand Dakar si benn euh, euh, ngontu Ndeye Sali madame la ministre Ndeye Sali Diop Dieng wax dëgg yàlla mu def Grand Dakar lu am solo ñu soxla nañ ko fii moo tax bëgg nañ maa faa jàpp ñu ci loolu ndax euh, bu demee foofu jëlal mille femmes couverture maladie universelle bu pare may leen deux jox leen deux cent millions yoo xam ne pour ñu liggéey ñun soxla nañ ko fii Colobane te ndax te ñun dañuy génn di dem ci activité yooyu dem ci yeneen activité fu ne ñu ngi fay dugal suñu dossier mais ba léegi gisaguñ benn avancement tamit waa gis nga waaw maa nga foo gisante naa fa maam Fall sax ñun dañuy dem ci activité yi ministère yi fépp la ñuy dem mais ba léegi daal la ñu jaaxal mooy dafa amul benn avancement te pourtant ay jigéeni jàmbaar ñoo fi nekk ñoo xam ne fajar la ñuy xëy guddee wàcc ba pare macha allah ni ko sama naataango waxee léegi sama secrétaire général borom këram dafa génn àdduna am na neen ñoo xam ne seen borom kër dañoo génn àdduna ñu njaboot takk seen liggéey di ligg di di yor seen doom yor seen bopp te seen loxo jotul seen digg ginnaaw waaw fii de dara jafe wax dëgg yàlla ndax ñëw leen ñu ànd liggéey rek la <clears throat> ndax développement moom dafa xew bi mu xewee sax yàgg na mais fii mu nekk dafa gën a tee xew ndax nit ñi ñoo dem ba yeewu xam ne dafa booloo di liggéey si la la bailleur bi di ñëw di financer mais individuellement mën nga di recherche ay financement xëy na crédibilité doo ko am kon nag képp koo xam ne bëgg na ñëw bu ñëwee adhésion bi 2000 francs la carte membre bi cotisation mensuelle 1200 xam nga loolu moom pour am départ rek léegi na départ bi depuis boobu ba léegi si noonu la ñuy liggéeyee vraiment c'est facile à accéder dans association bi euh, biñ ko sosee ba léegi li ma ci dund lu ma neex de bëri na wax dëgg yàlla <laughs> ndax euh, damay toog a jigéen ñi di waxtaan ak ñoom sottante xalaat xam nga expérience bu yokk laa si gisee ak tamit euh, fi may liggéeyee ni di mairie ba ñu ñu naw ma tam laa si gisee parce que xam naa ne du sama jëmm ji xëy na suñ borom moo ko def ndax nit pas-pas bu nekkee ci yow ñoom bureau bu ma ci fëgg fële ne ci mairie ba dañ may dañ may accueillir lu ma leen wax lu ne tamit suba ba ngoon dañ siy jéem c'est dafa fekk ne commune bi dafa yaatu te ñëpp a soxla waaye ñoom boo ne association jàppoo liggéey suñu gaal rek nee nañ association bi dafa am pas-pas ndax da nga nekk sa moromu ndaw la wax dëgg yàlla mu am problème nga waxtaan ak moom xam nga delloo si moraalam yooyu moom a ci gën a neex sax ndax ñu bari dinañ ñëw waxtaan ak man toll fu métti mais ma waxtaanee ñoom rek ma gis ñu kii te loolu man daf ma neex li tax mu neex moom mooy man bugguma nit kuy souffrir nit kuy souffrir bugguma koo gis waaw te jigéen wax dëgg yàlla jàmbaar lañ waaye ki ñu bëggoon jàppale euh, numéro booy woote ci numéro yi si suuf euh, koo si woor rek di nga ko jot incha allah suñu page Facebook tamit ku tàppe jàppoo liggéey sunu gaal euh, di ñu gis foofu suñuy activité mi ngi foofu. waaw ñi may gërëm da xanaa <coughs> damay gërëm sama mbokk yi ma ànd nga xam ne depuis boobu ba léegi wax dëgg yàlla ñu ngi jàpp taw bàyyi bien que métti na nag waaye ñu ngi jàpp rek di dundee yaakaar di gërëm tamit samay ñaari way jur Euh, sama jur bu góor bi nekk euh, àllaaxira euh, barzak yal na ko suñu borom jéggal dolli ko de di gërëm sama jur bu jigéen di gërëm tamit monsieur le maire Ousmane Ndoye si di si confiance bi nga xam ne am na ko ci man di sama taxawaay fii ci commune maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm ñëpp rek di gërëm ñëpp ñi ci commune bi di leen gërëm yéen tamit. Hmm. merci beaucoup. ok merci. <laughs>